parti Cheikh Bara Ndiaye audio mhm. bi fuité ñi naan ne dëgg la ñi naan ne montage la tey lan ngay wax ci mbir moomu ci mbirum Adji Sarr ak waaw ah xam nga fi ne Sénégal moom dafa neex ba nga xam ne euh, ku def audio bu ñu gis ñu ne euh, ndax dëgg la am du dëgg ndax est-ce que du montage vidéo bu ñu gis it ne est-ce que du montage c'est vrai que avec le développement de la technologie tout est possible mais am na loo xam ne kenn mënu ko inventé wala kenn mënu ko monté ba mu ba mu ba mu ba mu mel ni mu war a ba mu mel ni mu mel alors euh, donc euh, sénégalais yëpp xam nañ ne Ousmane Sonko moom moo dem foofu te wax na ko ne moom moo dem ca bërëb boobu fa Adji Sarr doon liggéey te bërëb boobu ku xam dëgg nit njaay par defoo par parlo xam nga ne foofu booy faju doo fa dem xanaa kay leneen ngay faj booy faj leneen moom di nga fa dem. da bërëb yooyu moo man du sama jëbukaay ndax man am naa amoon naa sax ñaari soxna mais instant bi benn soxna laa am su su ma amaatee beneen jël mais euh, waa non peut-être ku yéen journalistes yi investigateurs yi ak yooyu yéen mën ngeen dem di gëstu ci melo man yooyu bërëb yooyu xam naa la fa ne parce que ñu ngi ci réseaux sociaux yi euh, nga nekk ci page sa page Facebook ñu am ñu lay demandé ami da xam ne ñii ñi lay demandé ami yo pour loolu la boo fa demee boo waxaalee sax fay 5000 ay 10 000 ki 15 000 la donc mën nga waxaale donc dañ lay maase ba nga ba nga réglé soo bëggee ñu yokkal la ci leneen te xam nga fuñ te façon boobu massage boobu ñu lay maase moom sa yaram dina tàng tàng boo xam ne moom buñ la proposé leneen di nga nga di nga te looloo la ko donc Ousmane Sonko nag li taxoon sénégalais gën a génn dund gi metti woon na. Euh, Covid bi jaar fi euh, guerre Ukraine bi jaar fi mais tamit sénégalais yu bëri dañu jàppoon ne xëy na ni ñu def xalifa Sall ni ñu def Karim Wade xëy na moom it noonu lañ ko bëggoon def empêché ko mu nekk euh, candidat ci ay élection nangam nangam te ñëpp xam nañ ne Karim Wade bi ñu ko fiy topp sénégalais yëpp d' accord neen xanaa kay li sénégalais yi d' mooy lu tax moom kese ñu topp ko ak yooyu te loolu aussi justice la mais du président Macky Sall Khalifa Sall aussi weddiwuloon ni ñi ma jiitu nii lañ ko doon defee mais tey président Macky Sall euh, mu ngi am xol bu yaatu xol bu rafet ne Karim ku mel na ñoo xam ne defoon nen nañ leen jéggal te si jéggal boobu ka euh, Ousmane Sonko sax mën na ci bokk tey bu nangoon dem procès. kon comme gëm nga ne procès bi dina am. man li mais Ousmane Sonko buggul procès bi jaral na ko mu dee mu xaru oui Ousmane du mës a dem ci procès man maa la il créa tout xoola xam nga day taxaw di wax ne procès procès man maa leen ko wax jarul guddal jarul gàttal Ousmane Sonko du dem procès buggul dem procès xam na ne bu demee procès suturaam dina xawee ba pare euh, la vérité éclatera donc léegi man boo sañoon nañ ko bàyyi garawul waa nañ ko bàyyi def na li muy def sénégalais yi duñ duñ dof waaw mais Adji Sarr nag mooy perte c'est vrai mooy perte c'est dommage jigéen la bon jigéen moom vraiment mais yàlla baax na na muñ et rafet na jekk na mën na am jëkkër ju baax ah moom bu fekkee mu may xool de bu bëggee ma <laughs> na ñëw ma ñaareele ko su <laughs> d'accord waaye nag dama ragal après ñu xëcc sama nopp de boo génnee ci émission bi <laughs>